asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ñaari korité moom moo nar a am ren ndaxte yëglekaay bii di Sud Quotidien bi ngi ñuy xamal ne commission d' observation du croissant lunaire ñoom de démb daal dina ñuy def nag seen séntu bu njëkk ci la ñu daal di xamle ne am na ci yenn ci ay gox yoo xam ne daal weer bi daal dina fi feeñ yëglekaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal ne bu ñu sukkandikoo nag ci commission googu ñoom nee nañu gis nañu weer bi fii ci Sénégal rawatina nag ca Kaolack gis nañ ko tamit ca Côte d'Ivoire Somalie Mali ak tamit Niger loolu nag moom moo tax ba ñoom daal dinañuy xamle ne tey ci samedi ji la ñu fas yéene màggal seen korité njabootu Umar yéen autolikay bi di su quotidien du ñu xamal ne ñoom it daal dinañuy xamle ne weer bi gis nañu ko ca Jobe nekk nag benn gox bu jege Ndioum foofu sax imam ratib Aruna Diop moom moo daal di xamle ne gis na nag weer wi te it lu tolloog juróom njaboot daal nañuy xamle ne ñoom it gis nañu ko fa loolu kon di firndeel ne ñoom tey ji la ñu fas julli boobu nag fekk na ne commission nationale de concertation sur le croissant lunaire te kii di Ahmed Iyane Thiam jiite ko ñoom tey ci guddi la ñu fas yéene nag dem fa li nga xam ne moom mooy ca RTS ngir seentu weer wi suy naataangoo yi dañ ci yokk duñu ñu xamal ne nag bëri na ay dëkk yu nekk ci biir àddina bi boo xam ne daal ñoom sax ci dimanche bi lañu ñu fas yéene nag kon amal seen korité li ni mel moom moo nar am fa li nga xam ne moom mooy ca Arabie Saoudite ca Émirats arabes unis Qatar Jordanie ak tamit ci dëkk yu mel ni Turquie Malaisie ak Indonésie wante ca samedi ji lañ fas yéene màggal korité bi ñu desandi ak colikaay bii di Sud Quotidien ñëwaat nag ci kuréel bii di bi wureegul jëmale ko nag ci wàllu club googu colikaay bii di Sud Quotidien di ñu fàttali ne ñoom ba ñu fësalee benn motion de soutien di jàppale kërub liggéeykaay bi di Akilee la coow topp ba léegi colikaay bii di Sud Quotidien di xamal nag ne bëri na ñoo xam ne dañoo daal jóge nag ci wàllu club googu ñu ràññee ci ku ci mel ni Abdourahmane Ndiaye te mu jiite euh, Sagam Senbus ak Elton Madiambal Diagne jiite groupe Avenir Communication Thiaba Camara Sy ak tamit Khadim Kebe PDG bu Focus SA Amadou Kane nekkoon fi sax jorin gu ñu denk wàllu koom fii ci mim réew ñoom ñëpp daal dina ñuy démissionné ñu daal di jukki ci tollu tolluwaay réew mi ci feebar bi di coronavirus léegi ñu war a toll ci ñetti junniy cas nit ñi nga xam ne nag ñoom ñoo am feebar bi di coronavirus ëjolikaay bii di ci quotidien duñ ci yokk duñu xamal ne li ëpp ci nekk loolu moom moo war a tax ba ay matuwaay yu am solo la ñu war a mën a jël fii ci biir Dakar ndaxte su fekkente ne nag gañewu ñu xeex bi fii nga xam ne moom mooy ci biir dakaar dina jafe ñu daal di koy gañe ci yeneen diwaan yi culikaay bi di enquête di ñu xamal ne ci wàllu xeex boobu nga xam ne ministère de la santé ma ngi koy xeex jëmale ko ci feebar bi di coronavirus dafa mel ni nag ne am naa pëccoxoo bu ak jiixi jaaxa bañ ca nemmeeku ndaxte direction de la prévention ñoom ñi nga xam ne nag seen liggéey yàgg nañ leen ko ràññee surtout sax ci wàllu xeex bañ doon xeex jëmale ko ci feebar bii di Ebola ñoom de dañu leen a écarté leen jël teg leen fee julikaay bii di enquête du ñu xamal ne ministère dañoo préféré liggéey ak waa COUS di centre des opérations d'urgence sanitaire wante ba ñu demee ba gis nag ne ñu ngay tàmbalee di lajj ci wàllu xeex boobu la ñu jël waa direction de la prévention daal di leen dugal ci biir comité bi ci biir julikaay bi di Le Soleil suñu naatango yi ñu ngi dalal ministre Oumar Youm moom mi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu infrastructure wàllu dem dikk ci suuf si ak tamit désenclavement ma ngay ñëwaat nag ci yenn ci ay matuwaay yoo xam ne nguur gi jël na ko ngir xeex ci ni mu waree lépp lu jublu ci wàllu feebar bi di coronavirus ñu daal di ràññee ne ci fan yi ñu jógee nag njiitu réew mi gën naa oyofal nag mesure yooyu ndaxte daal léegi lépp lu jublu woon ci wàllu dem ak dikk bi may nañu nag ñi nga xam ne de ñoom ñooy transporteurs yi ñu daal di jël nag nombre autolikaay bi di Le Soleil du ñu xamal ne mesure yooyu nga xam ne moom la ñu jël jëmale ko ci wàll gi ni mel joriñ gi di Omar gisul nag ne nguur gi def cee dellu ginnaaw moom dafa daal di xamle ne stratégie bu bees la te it naka faw ñu daal di koy doxalee ci ni mu waree ñu jeexalee kon ak xibaar bu tiisa bi di génnup àddina waykat bu màgg bi di Mory moom moom di artiste guinéen démb la daal di génn àddina culikaay bi di la soleil mi ngi ñi xamal ne amoon na ci lu tollook juróom-ñaar fukki at moom moom nga xam ne ràññee nañ ko ci wàllu world music moom moo dëddu àddina suñu naataangoo yu culikaay bii di Sud Quotidien gis ne Afrique daal di ne ñàkk ko uh, mag ci wàllu musique moom moomu nga xam ginnaaw ba mu génnee nag woyam bi di yeke yeke ci atum 1984 mu nekk ab album boo xam ne nag jaay nañu ko ci juróomi million ci ay exemplaires ci àddina bi yëpp moom moom di Mori Kanté dafa yàgg fësal musique ak culture africaine ñu ko doon woowee sax le griot électrique kooku moom moo dëddu àddina ginnaaw keneen koo xam ne it ràññeewoon nañu ko ci wàllu musique muy Manu Dibango li moo nekkoon di gën yéenekaay gii ñu leen di ñaanaan njeextalu bés ak jàmm Mesdames et messieurs, bonjour. Aidel Fitre puissance 2, comprenez, comprenez qu'au Sénégal, il y aura deux comités et pour cause, la commission d'observation du croissant lunaire de la CMS, la coordination des musulmans du Sénégal a procédé hier à l'observation de la lune au Sénégal, dans la sous-région et à travers le monde musulman. Et cette commission informe que la lune a été aperçue ici au Sénégal, à Kaolack, en Côte d'Ivoire, en Somalie, au Mali et au Niger. Et par la commission la coordination des musulmans du Sénégal déclare que la Korité sera célébrée aujourd'hui. La famille omarienne, nous disent toujours nos confrères du journal Sud Quotidien, va prier aujourd'hui car huit familles habitant la localité de Diobé, située à 20 km de Ndioum, déclarent avoir aperçu la lune. Mais pendant ce temps, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui appelle à poursuivre le jeûne un jour après la CMS la nouvelle lune. En attendant la décision de cette commission, force est de constater que dans plusieurs pays musulmans à travers le monde, le Ramadan comprendra 30 jours de jeûne du mois pour ceux qui ont démarré le mois béni le vendredi 24 avril. C'est le cas en Arabie Saoudite et dans plusieurs autres pays du Golfe. En Europe, par contre, la date de la fin du Ramadan a été fixée à ce samedi 23 mai en France. Restons avec nos confrères de Sud Quotidien le reste dans la zone de turbulence. Même le mea culpa du président Babacar Ngom, qui a reconnu dans une lettre publiée sur sa page Facebook, n'a réussi à apaiser les esprits. Et nos confrères nous indiquent même que les membres du CIS ont décidé de la mise en place d'un comité d'audit. Cependant, certains membres, surtout ceux qui ont démissionné, se demandent à quoi va servir euh, ce comité pour auditer qui et quoi. Car pas plus tard que fin avril, c'est-à-dire il y a moins certifiée par un cabinet. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères se sont entretenus avec Maître Oumar c'est le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Mesures d'assouplissement, partage du fonds dédié au transport, la nouvelle société des chemins de fer en gestation, le niveau d'exécution des chantiers en cours. Tous ces points ont été abordés euh, par le ministre Oumar et concernant les mesures d'assouplissement, Maître

perdre euh, tout le reste. Et il faut souligner avec nos confrères du journal Enquête que concernant cette riposte, la direction de la prévention a été carrément écartée. Selon nos confrères, Abdoulaye Diouf a préféré collaborer avec le Centre des opérations d'urgence sanitaire. Alors qu'en avec Ebola, c'est la direction de la prévention qui gérait les volets prévention et communication. Une stratégie qui a bien réussi car la population était bien sensibilisée et respectait les lutte contre le coronavirus. Et pourtant, nous disent nos confrères, il suffisait juste de laisser le docteur Mamadou directeur général de la prévention, et son équipe faire leur travail. Peut-être qu'à cette heure, on n'en serait pas à ce stade de la pandémie. Mais l'on nous signale que la direction de la prévention a été réintégrée par le ministre Abdoulaye Diouf depuis que la situation de la pandémie a dégénéré. Et nous terminons par ces tristes nouvelles confrères du quotidien Le Soleil. Pour nos confrères de Sud Quotidien, l'Afrique perd une légende car Mori Kanté aura marqué des générations avec sa musique révélée au grand public à travers son tube Yeke Yeke en 1984 et vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Mori Kanté a porté haut le flambeau de la musique et de la culture africaine. Celui que l'on surnomme le griot électrique s'est éteint quelques mois après la star planétaire Manu